xew lu ñu ko mën a jàppee. assemblée lu fa xew. parce que bu ma dégloo El Malick aussi euh, ñoom euh, amoon nañu euh, intention dugal benn projet pour modification yenn articles yi proposé leen ko ngeen piloté ko ku ci mel ne Abba mbay mm-hmm. defu ko wala dañu ko mujj jox Guy Marius Sagna mu porté ko. waaw léegi comme sénégalais am nañ xel dañuy xalaat kenn mënu leen a nax moom nee na dugal nañ projet de loi. Mm-hmm. biir assemblée nationale. pour ñu modifier article yi nga wax léegi L29 l ah Guy Marius Sagna moo ko porté woon honorable député l'honorable député moo ko porté woon léegi. après le refus d'Abba Mbaye. après le refus d'Abba loolu la wax. Mhm. léegi comme ñoom dugoon lañu projet de loi pour Khalifa Sall ak Karim Wade mën a jàll kon lan moo tax bi ñu voté loi bi bi ñu koy voté ñoom voté wuñu bu ñu ba pare. ñoom ñu ñoom ñu def recours pour ñu annuler loi bi. fii bokk na. du tax parce que ñoom bu ma leen dégloo euh, seen bëgg-bëgg moo nekkoon que ne euh, non seulement Khalifa Karim dellu si dans le jeu mais que modification bi du écarter keneen te tel ni ko defee nii nii nii nii li jógee ci dialogue bi dafay indil ay fu ñu mën a jaar pour xañ Ousmane Sonko. mu bokk ci yëf yi xam nga dañu ne. c'est que bu ñuy xeex doo xeex dafa ne moom du xeex pour ay nit. Mm-hmm. ay principe lay xeex loolu la wax. du débat de personne la wax. Mm. ay principe lay xeex. sauf que nee nañu aussi ni mu demee nii. dafay écart seen leader. mais principe yi kon ñoom seen leader dañu la dañu la ubbil yoon loolu ay principe boo nee principe rek per personnage dégagé wu la amul sama amul sama bos donc ki def loolu ne moom mun na la bëgg na nga bokk. Mm-hmm. nga voté mu porté recours recours baa ngi nii. Mm-hmm. ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko porté. yóbbu ko ba pare ñu ko signé ñu ngi nii. 30 députés ñoo ko signé. de Pastef. du Pastef kese. maa ngi gis Bassirou Goudiaby maa ngi gis Ayib Daffé ak ñeneen ak ñeneen. ba dañoo bëri. mënuloo ko lii mais gis nga si gis nga si gis nga si Abbas Fall. Mhm. trop mi ngi ci biir. Guy Marius Sagna trop mi ngi ci biir. Birame Souleye Diop trop mi ci biir. ñoo ko porté te ñu ne bëgg nañu Khalifa Sall te ñun bi ñu demee dialogue. mais mais avant loolu est-ce que bi ngeen adopté yéen. moom la ñuy décrier ñoom. est-ce que dañu ne. est-ce que dañu nga ne ils n'ont rien contre Khalifa Karim que ñu bokk. mais seen problème mooy. yëf ni mu tëddee dafay écarter seen leader. nga yaakaar ne ñun taxawu Sénégal gars socialist socialiste. Mhm. dinañ dara biir PS. keneen dañu ko teg ci biti ñu koy accepter. mooy est-ce que mun nga accepter ne boo demee ci benn kuréel. Mhm. ci biir yeew yi kenn mooy wax ñëpp accepte ko keneen du wax. est-ce que dañu tere dañu tere benn yoon ñu ne parti am nañ amuñu droit dem ci dialogue dañ ko tere. pensée unique ngeen di mais est-ce que loolu tey yow mën nga ko xalaat mu amaat Sénégal mm-hmm. cette pensée unique la mënul am Sénégal ñun lu ñu nangoon lu ñu bañ biir PS. ko nangul keneen. mun na ko nangul keneen ki ñu fi ñu nàmpee raamee fa ba taxaw ba màgg fa bañ loolu ñu dàquñu dañ nangu keneen ñëw duñu ko imposer ñu koy accepter mm-hmm. et puis loolu dafa rëdd Sénégal yi sax. mais est-ce que le de Ousmane Sonko. vous interpelle vous intéresse maanaam tey jii ce qui lui arrive euh, boo seetloo tout ce qui se passe depuis un certain temps dafa mel ne ça vise à l'écarter ci champ politique bi mais ñun bi ñuy demee dialogue bi ñu waxtaanee article vingt neuf mhm. L vingt huit L vingt neuf L trente L cinquante L cinquante sept ñoom bi ñu béy L cinquante sept bi pour ñu continuer bi waxtaan bi dañ ne nañu créer benn commission de suivi mhm. boo xam ne yi ñu daaxul yëpp dañ koy continuer waxtaanee foofu pour mun a continuer discussion bi pour au moins li mooy ñu ba ñëpp bokk. mais mënoon nañu ne comme comme ñu état bi d' accord ak ñu fa tegoon ñenn ñi d' accord ñu nañu yemale fa affaire yi mais dañ ko yóbbu def benn commission de suivi pour mu wax L57 boobu mu nga ko discuter ba lépp sotti nga politique lépp waxtaan lépp waxtaan. waxtaan d' accord mais pas parce que bu ma dégloo El Malick toujours nee na am nañu entente secrète entre taxawu wàllu ak benn bokk yaakaar. loolu la ñu constaté ba am ay preuve ma ko génnee deal weesuwul dil weesuwul. nekk ak say nawle ñoom tey bu seen pexe juboon tey Khalifa Sall tey day perte Grand Yoff élection locale yi. loolu munoo ko mënoo ko res mënoo désigner responsabilité bi euh, ci kaw Pastef. maanaam am na ko def ci suuf mais ça ne concerne pas les grands responsables. non mais comme ko responsable Pastef de Grand Yoff. mu nekkoon leur coordonnateur foog koo koy koo ko wékk keneen. lu ci responsabilité les plus grands responsables de Pastef. mais non non ku ci mel ne Ousmane Sonko. par exemple ba léegi dégguloo ñu ne ñu Ousmane Sonko moo ko def. déggu leen ko. mais est-ce que ñoom def nañ conférence de presse dénoncé loolu. dénoncé ko hmm. def nañ ko est-ce ñu ne gën nañ communiqué. est que am na am na ay jamono monsieur le maire Ousmane ko am lu mu wax ne pratique yi muy gis ci ñenn ci ñi far ci moom euh, ñoo pire même yi ñu am en face di def. waaw loolu xëy na yaa ngi koy fàttaliku. waaw wax na loolu. voilà mais mais mais dama la bëgg a xamal ne ñun bu ñu doon bu ñu doon fayantoo. Mhm. tey lu bëri ni ñi dégg nañu kay mosu ñoo dégg. Xalifa feexal li xew Dakar du fayantoo keroog bi ñuy voté yi. ba ngeen di jëndi Abbas Fall di ko sànni fële dëgg la euh, cour d'appel moo ko sàkku woon mais le poste devait revenir ci yoon par élégance à koo xam ne jigéenu Pastef la. non non par rapport ak ville de Dakar xam wax naa la sànq ne la taxawu Sénégal amul benn conseil ville Ziguinchor. Mhm. commune amuñu fa benn conseil. kon li xew Dakar fayoon tool la. kenn lañ fa am déedéet kenn lañ fa am te koo xam fu mu duggee boo ko gis-gis moo ko dugal. Mhm. bi mu yóbbu dañ ko rejeté mu dem boo gis-gis jël ko dugal ko mu jàpp. ok. loolu moo ko indi. moo indi moo indi conseil boobu ci biir. Mhm. maintenant par rapport ak ak ak ak ak ville Dakar pour man quota premier adjoint bi. Mhm. du woon quota Pastef. Pastef bi ñu defee quota de cinq bi am na quatre adjoints au maire la am. si mais bi bokk ci woon. premier bi. la moo ko def Abass Fall alors le maire Barthélémy Diaz. parce que Abass il était ci élection Barthélémy Diaz. le maire Barthélémy Diaz c'était pas ne Abass Fall moo nekkoon directeur campagne mhm. moom dafay ñaan Pastef bu ñu amee quatre nañ ko may benn boo xam moom moo ko moom pour Abass Fall le premier adjoint. c'était par élégance. waaw mu ne Pathé Ba Pathé. Mhm. il est adjoint au niveau de la ville au de Grand Yoff il est conseiller municipal moom aussi dafa nekkoon Barthélemy ñaan postu postu Pathé am na beneen troisième poste mais ñaar ñooñu dama leen maîtriser woon. Mhm. moo tax mais bu ñu demee bu ñu demee di waxtaan bu defaraat beneen bureau beneen bureau municipal mais toogal nga waxtaan gis nga pour de la chaise vide. Mhm. du maye dara. musul am njëriñ waaw tey du maye dara. c'est ce qu'ont compris les de l'opposition en 2007 bi ñu bi ñu bi ñu boycotté. mu mujjee. waay <laughs> assemblée bi. PDS def leen ne. Mhm. loi yi jàll. waaw yëpp a jàll mais bu ñu wootee waxtaan même boo d'accordul toogal. toogal. Mhm. toogal ngeen ngeen discuter nga wax sa point de vue ngeen waxtaan ba ku nekk convaincre sa morom man d'accord naa ne mënoon nañ jox sax Pastef place boobu. Mhm. waxtaan moo ko indi waxtaan moo ko waxtaan la baat bi mu ñuy ñaan poste premier adjoint bi pour ñu jox Abbas. mais force wuñu ko. boo xool force ñu ne ko mayuñu la ko. mais dañ ko ñaan ci njëkk mu dem teg Abbas ñu teg beneen candidat voté. mais dafa ne Abbas suñu nawle la. nañ ko fa teg bu nekkoon ko teg.